ñu leen nuyu bu baax a baax di leen dalal ak jàmm ànd see ki nga xam nekk moo di Abdou Ngeex si nga xam nekk moo di décryptage beeg yaatal yeeg faram-fàcce gi si mu gën a yaatoo exactement Abdou ñu leen nuyu bu baax a baax di la ziar bàyyi nga daal nuyu téléspectateurs yi di la dalal jàmm si weex li nga xam nekk moo di justement euh, Midi Info waaw maa ngi lay fay di nuyu ñi seetaan ñëpp di nuyu sama mbokk Baye Fall di leen ñaanal jàmm hmm. di masawu waa Touba ndax li leen dal métti na torop torop torop torop torop torop ba jéggi dayoo Irin di masa bu baax ka baax ka baax di delon jukal nak euh, le maire de Dakar. Hmm. Babacar euh, nu mu sax di Dias ndax wax dëgg yàlla. sànq rek yaa ngi naan ma moom kenn déggu ko mana ne la day liggéey amul jot. bo am xam nga am jot. Hmm. mooy ñoom Sonko li ñuy def ak ministre mi nekk ca TikTok ba ak wëndeelu ak ci réseaux sociaux yi nyom am jot nak nag dañ ko dénk lu toll ne Dakar Senegar sax mo gën a Dakar. teewul gis ministre yi TikTok bi. non ñii ci ñii dañoo jot. Abdou Diomaye nee na lu nit wax dégg na ko ko am jot du def loolu ku am jot doo am jot di diglu. waaw mais noonu la maanaam kon maanaam nga dégg ko liggéeyoo. Diomaye wan na leen man liggéeyu ma moom moo ko wax ci gémmiñam sosalu ma ko Barth nag gëj ngeen ko gis gëj ngeen koo dégg chaque jour rek bu ne këtt ne jonn boo ko déggee rek da nga koy dégg ci lu rëy kañ lañ ko déggoon barki dem Masaalikul Jinaan hmm. bi muy yóbbu centrale solaire bi kañ lañ ko déggaat bi muy yóbbu machine pompe yi fële Touba te sànq nii léegi léegi léegi léegi parce que dafa yóbbu xam gis na lii doyul muy waat ñeent ca yooyu waxtu nag Cheikh Tidiane Dieye moto yam yóbbu mënul manque butéel bi machine yi pompe weñ la xaw ma yi waa Eaux et la yor xaw ma nu mu tudd sax ñooñu noonu di pompe dëkk bi service d'hygiène mm. mu yooyu la yóbbu xam nga ne loolu wax dëgg yàlla bari go ndox sax mënu koo pompe Barthélémy Dias nag déployé na moyen parce que Barthélémy Dias dafa mel ne dafa bëgg a lëkkale mairie Touba ak mairie Dakar dafa mel ne dafa déplacé mairie Dakar bi yóbbu ko tubaa loolu nag lañ doon xaar ci jomaay Nak voté luñu won watu de wa Touba ba voté jotee voté luñu won khalifa bi andon ak Barth jomaay mi lañ votel waye ba ndox ma tawé jomaay waa këram nee nañ leen lii du suñu ndox ku nekk man na jàngat loolu nag waaw ma ngi koy gërëm bu baax nak bala émission bi commencé ma koy ñukal mom demi jass attention de man kat lay wër wër may wax kat de alors te Barth nag mi ngi jëf alors su ngeen deful attention nak dina jël dina jël jëf ji leen wax ji alors bien non exactement Pour ce jour c'est l'un des ne que moo di émission bu tey bi mbokk yi euh, dal ci na tout rek dañ daal ñëw si wàllu actualité tolaay réew mi si nu mu gën a yaatoo li si nar a na li euh, la DIC et la sûreté urbaine nag dañuy daal procéder exactement euh, à des arrestations ni ki dem ak tey ñu bëri nag arrêté nañ leen bokk na si ki nga xam ne justement Jérôme Banyaga waaye itam aussi arrêté aussi le directeur de pharmaceutique di ki n'a xam ne rek moo justement down Euh, Mamadou euh, Fawzeyni Dione mu nekk exactement euh, DG bu RP de na ko daal di si nu mu gën exactement si bien li nga xam que modi les dernières arrestations de la DIC et la sûreté urbaine ne suñu ponk yi itam ci na gën a bokuna sur la réduction des contacts tolluwaay waaye itam ak BGF bi nga xamni ni itam installé ko fi récemment dañ daa ñëw itam ba tey sàllu actualité bi par rapport ak cette liste bi nga xamni ni itam boobu mi ngi circuler ki nga xam que modi di Kane amal na li nga xam que modi réaction à la dernière minute de

si ki n'a xam que moo le président euh, wala kon le président de la République euh, ancien di ki n'a xam que moo Macky Sall de 2009 à 2012 n'a connu itam si le ko doonee si Aminata Touré de 2013 à 2014 mom nag ki n'a xam nekk moo di euh, exactement modi di leen ko daal di arrêté naka démb foofu division des investigations criminelles donc nag vers 22 heures la élément yu diggéey daal di wàcc si këram fekk ñu ko fa nak jawaram lañ daal di fekk nak noonu leen daal di coopérer ak jabaram daal ñu koy woowal ki nga xam que modi borom këram moom euh, naka noonu itam mbokk yi la ko daal euh, arrêté yóbbu ko si kanam yoon ak wàllu yoonal donc nag jamono ji mi ngi dans les euh, locaux bu commissariat bu division des investigations criminelles donc kërëm nak moy force daan na ko centre ville euh jàppale ni itam ben ko arrivé dans les locaux de la division des investigations criminelles aux environs de 22 heures Bandiagui commencé na pour répondre exactement question yi nga xam ni itam dox na niki minuit japp 1 h 35 audition bobu nak mu don tourner autour euh, par rapport à passeport diplomatique bi nga ni itam yor ko logement d'état bi nga xam ni itam mu ngi ko centre ville la bokku na si bâton euh, télescope bien à xam ni itam da ko utiliser exactement manikon tant kon tontu na que euh, si on dañ nga xamné que mu di laaj na ni ba mu nga garde du corps bu Aminata Touré si loxo daal di passeport diplomatique bu nu mel que non la logement de fonction force à notre centre ville aussi euh, bâton de télescope bi dako koy daal di parce que garde rapproché la et d'autres et d'autres alors Serigne alors justement Abdou manikon a kon arrêté neen ki na xamné que modi justement mom Bandiaga euh, yëkkati na li nga xam ne que mu ay kàddu mu dadi di euh, prochaine loolu si ki nga xam ne que mu Macky Sall naka nakoy dadi comprendre parce que mom nenen peut-être du ñak ni euh, mbiru Fulbert versam xamna ci dara ñom Didier Badji et consort nak daal di jàngatee cette arrestation. man motif arrestation bi du loolu ni hmm. lenn ni manam passeport diplomatique bi ñu. waaw xam nga motif arrestation bi luñ ci yok sax affaire Didier Badji. ok ñee ñoo ci yok moy ar suñu projet. Hmm. mooy ñooñu di di di ñu forcer projet bu amul. waa aar suñu procès kalaasu Pape Moussa mm. Sow gi maa ngi koy nuyu ak ñooñu noonu groupe boobu daal mais même band boobu daal. la c'est Pape Moussa juriste la nee na. juriste <laughs> aar suñu procès ñooñu la mooy genre yooyu nga xam ne. Mm. maanaam Pastef bu ñu dajalee seen i caaxaan ba war ñu koo forcer ñooñu la ñuy yónni pour ñu koy dugal suñu bopp yi quoi parce que am na boo yoo xam ne seen bopp yi kópp moo ci ne ñoom Pape Moussa dañ ko mën a ñëw wëndeel leen dugal ci seen caaxaan yooyu. Mm. la ñooñu ñooy waa aar suñu projet ak ñooñu tuddee xaw ma feeñal digital. Hmm. voilà yoole yoole maan yooyu ñooñu la. ñooñu ñoo ñëw jël yenn motifs yi di ko ci di ko forcer pour journaliste di ko waxtaanee mais affaire Didier Badji engagé wul. booy hmm. boobu. comprendre nga léegi nag bu dee da doon ànd ak Macky Sall loolu doo nga leen neexul tax ñu jàpp ko. ah bii ah, daal moom man noonu laa ko gisee.

Abdou euh, li xew si nervi yi tiitalu la. nervi li fi xewoon. man de fii ak pick ak aussi télescope bi nga xam ni itam fekkee nañ ko ko bâton télescope bi. ma baton télescope mooy mbolde. waaw <laughs> waaye kër goo demal na man sama néeg mbolde nga fa. sama saag bii ngóor gàtta ngi fi buñ paree ma wan la ko. fara réew mi toll comme ay wëyoon ne ci réew mi def lu leen neex. eh. Hmm. ma ne réew mi ñëppay gànnaayu taximaan boo dugg gis mbolde këram ci ci ci taxi bi. taxi bima dugg legi gis naa fa mbol de bo chaxan baxul lol lol lol motif la kon ka kër guñ dugg japp borom keur ga kon borom keur gu fi yorul fetal ya ngeeg jasi sa keur wala ya yaa mbol de nañ bay sen dof dof lu yi chaxan baxul li li yii dafa ñaaw fi wi nervi yenn nervi la fi xamone hmm. moy wa keur Ousmane Sonko ñi doon taal osan yi mais yow yow sa wax ji duma du dégg nga tuddu ñoño lol jaaxal na ma yow mom gis nga ñu doon taal ay osan ñooñu kay ñooy ay nervi mais est ce que ñooñu ci Ousmane Sonko leen bokk. waaw waaw ñooñu ñëpp ci waa kër Ousmane Sonko la. fan la teg ni ñooñu ci kër Ousmane Sonko ñoom la si lañ. Ousmane Sonko ba mu génnee dañu deuxième vague bi mooy gën a metti kon première vague bi nangu na ko. moom la ak waa këram. mais euh, fii daal nervi bu fi amee ci réew mi waa Pastef la ñoo doon taal alali jàmbur it ñoo doon taal BRT bi ñoo taal terre bi ñoo doon song gendarme yi man alhamdulilah ba nekkuma gendarme de. Hmm voilà mais Abdou suñ demee ba euh, ba surnommé de snap exactement Madame Kohamni, euh, il est puissant il est armé et tant d'autres et tant d'autres euh, la police et en d'autres et tant d'autres responsabilité devant ki Modi xam que exactement mu une figure proche si ki Modi xam que Macky Sall notamment aussi mu chef des marrons du feu une unité de sécurité privée affiliée force APR concrètement wax ji waxuñu ko de. sniper loolu daal du wax ci loolu daal du wax ci dolek, ji sniper laag waa ji daa am dooleeg il est puissant warul tax jàpp kenn de wax ji de. yéen ban. ba tey waxagoo ma lu leer de niveau ban information ngeen am à votre niveau peut être lu waral son arrestation. xaw ma ci dara kay man wax dëgg yàlla waaye yii nga ma jox moom moom dadul dadul motif yi jub. Hmm. wax dëgg yàlla lii du motif yi de. xam nga lan la waroon wax moom kat daa door ki moom kat daa saaga kii moom kat daa tooñ kii moom kat daa ray kii voilà moom kat daa sàcc lii waaye daa am doole il est puissant day tiital askan war askan la tiital kii mën na fi puissant pi ba puissant ba gën a puissant gendarmerie. ñaata sniper ñaata sniper ñoo ne ci réew mi fii ñaata garde rapproché garde rapproché président nga naan ku piis dafa war a puissant kuy président ku mu wóolu ba yaay ana garde rapproché Diomaye Sonko ñaata nervi ñoo ko daan topp nii di ko garde ñu ko doon garde si ay nervi lañ. ay nervi lañu luy nervi. nervi maanaam ay bras armés dem di askan di leen dóor. déedéet loolu du nervi. ah tamit. loolu du nervi. Ah.